atum 2023 di jeex ñuy dugg ci atum 2024 ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerub novembre atum 2023 nekk dat historique ci réewum Sénégal ci lu jëm ci wàllum wérgi yaram ndax ci lañu ñu njëkk amalee opération transplantation renal fii ci réewum Sénégal ca hôpital militaire bu Wakam ñaar yoo xam ni def nañu ko ñaari transplantation ci dimanche bi ak benn ci altine bi loolee nekk loo xam ni dafay sax ba faw ci istuwaaru Sénégal ndax boo boobile opération ab bitim réew rek lañu ko daan defee guuleet muy am ci réewum Sénégal loolee docteur Dia mi nga xam ni moom moo jiite itam hôpital bu wakkaam wax ni loolee travail d'équipe la moo tax ba lépp am waaye itam bokk na ci ay jumtukaay yu bari yoo xam ne booloo nañu ko am jëmale ko ci liggéey liggéey boobu nga xam ne nekk na loo xam ne andil na xar kanam bu yees ci wàllu wér-gi-yaram ci réewum Sénégal ci atum 2023 travail d'équipe boobu ñu def euh, docteur ja di wax ni am na ci jàppandaluk ay urologue ay biologiste ay immunologue ba ci sax ay psychologue itam pa bu yees boo xam ni Sénégal def na ko ci wàllum wér-gi-yaram ci atum 2023 loolee euh, docteur Dia di wax itam euh, ni tàggat nañu ñoo xam ne daanu fas yéene rek def lépp lu jëm jëm ci wàllum transplantation rénale fii ci réewum Sénégal ay jàngoro yoo xam ni fës nañu itam ci atum 2023 bokk na ci épidémie bi ñuy wax chikungunya moom nag ma nga feeñee ca diwaanu Kédougou ci sud du pays ci ñetti département yu nekk ci boobu les régions yoo xam ni signalé nañu ko mu toll ci 112 cas chikungunya nekk mala jàngoro boo xam ni feeñ ca Tanzanie ca atum 1952 foofu la njëkk a feeñee yoo la ñu xam ne ni moom moo koy joxe waxe ñu koy wax moustique ti jàngoro ji nag na mu ngi feeñee ca saw yaram bokk na ci yaram wuy tàng ay métit itam yoo xam ne danga koy am douleur articulaire wax nañ itam ci métitu bopp courbature dina feeñ nag ca say tànk ci say suufu tànk ba ci sax say loxo yoo bi nag mën na laa màtt jàpp ñeenti fan ba juróom-ñetti fan mu doogay feeñ ci yow moom chikungunya gannaaw bi nag propagé wu na ba diwaanu Ndakaar waaye nag jëlul bu baax ampleur fii ci région bu Ndakaaru moom la ñu jagleel xeex bi ñuy xeex a jàngoro ji nga xam ni moo di cancer mu di octobre rose ministère bi ñu dénk wàllu microfinance d'économie sociale ak solidaire ren ji mu amal ab lëkkaloo ak waa LISCA te ma Gënum jiite ko amal ab bés boo xam ni a jagleel nañu ko caytuwaay itam xeex jàngoro ji nga xam ni moo di cancer bu ween waaye itam butitu njurukaay Fatma Gënum jiite LISCA di présidente bi rafetlu bu baax a baax taxawaay bi xeex boobile doomu jàngoro wax na nag ci bés boobu ni atum 2010 ba léegi la ñu nag taxawaloon initié woon li nga xam ne moo di octobre rose ren ji ci atum 2023 bi mu nekk seen quatorzième édition xeex bi nag bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey di ma Guenoune yemul rek ci li nga xam ni moo di weeru octobre rose wala rek benn weer képp la ñu jagleel xeex bi ñuy xeex bi le doomi jàngoro di cancer waaye at bi yépp la ay chiffres yoo xam ni fësal nañu ko yu yees mu di 1900 nouveaux cas cancer yoo xam ni cancer col de l'utérus la maanaam butitu njurukaay yu ñu am 1312 décès ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan bu ñu ñëwee ci cancer du sein maanaam cancer wen 1817 ak cas yu yees yoo xam ni am nañu ko waaye itam 951 yoo xam ne mort ñoo xam ni ñàkk nañu ci seen bakkan ak Victorine Day ak dalal xelam ci jàppale gi ñu leen fas yéenee jàppale ci ñu xeex boobile doomi jàngoro fàttali ni lëkkaloo la boo xam ne amal nañu ko ci atum 2023 bi ngir xeex boobile doomile jàngoro di cancer mu dox ci diggante waa LISCA ak ministère bi ñu dénk microfinance économie sociale ak itam solidaire. tey dañ fi teew pour euh, signer convention entre le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ak euh, la LISCA mu nekk convention bi nga xamante ne euh, dañ ko signer. après plaidoyer bi Liska def ci benn point bu ñu bi nga xamante ne dafa dafa attirer suñu attention ndax euh, naam bu ñuy wax Liska cancer la ñuy gën a dégg waxu dépistage dañ koy wax waxu faj bi it dañ koy wax waaye dafa am benn volet bi nga xamante ne dafa am solo ndax ku xam ni cancer dafa nekk feebar bi nga xamante ne dafa yàgg faj bi metti te dafay indi it euh, benn day yokk précarité sax ci surtout ci euh, malade yi moo tax biñ ñu ko waxee ñu sawar ci lool sawar jàppale euh, ces braves femmes yi nga xamante ne feebar bi da leen dal ñu nekk di faju am ñu bari ñi nga xamante ne alhamdulilah wér nañu waaye ci feebar boobu jot nañ ci ñàkk seen liggéey ñu mën leen gunge à travers la mise en place d'un fonds pour permettre leen ñu mun a def seen ay activités yu am solo yu yu yu yu ci mbirum autonomisation ñu ne euh, fonds boobu tamit dina leen permettre ñu mën a def formation ndax ku wax euh, jàppale ci autonomisation yaakaar naa ni lu ciy gën a am solo it day fekk ak lu koy jiitu day fekk mu am formation donc nit ki bu amee formation nga jox ko dara li nga xamante ne mën na ci tàmbali liggéeyam yaakaar naa ne dina ci gis euh, ngëneel bu baax a baax. Euh, li ñuy def nag defuñu lu dul euh, topp directive bu son excellence président Macky jàpp leen itam ni ci ak fàttali maladie respiratoire maanaam jafe-jafe noyyi ba am ca Chine ba sax yokk woon ci weeru novembre a gannaaw bi Marie Khemesse Ngom Ndiaye di jëwriñ ji ñu dénk wàllum wér gi yaram ak ña muy liggéeyandool ak génnee ab communiqué ngir alerter ci mbir moomu ngir rek ñu def ndànk ci boobile jàngoro ngir mën a caa mucc ci respecté yi nga xam ni rek mooy jéego. jéego yu ñu teg ngir mën a mucc maanaam ay mesures barrières ngir mën a mucc ci boobu bile feebar di maladie respiratoire. bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé nag depuis mi octobre ba léegi ci diwaan Chine dafa am benn épidémie boo xamante ne nii moo fa nekk di sonal li nga xamante ne mooy xale yi épidémie doobu boobee sax liñ ci gën a mën a nemmeeku mooy li nga xam ne ci wàllu noyyi gi dafa mel ni dafay jafe ci yenn ndaw ñi bu leen dalee loolee nag ñoom jàpp nañ ni lu ko war rek mooy ñàkk a respecté li nga xamante ne nii mooy mesure de

Sénégal moo ko fi teg bés bi ñu jagleel diabète amal nañu ko fukki fan ak ñeent ci weerub novembre cérémonie officielle bi ren ji amal nañu ko ca maison culture bu Douta Seck mbëbët li nag mooy nekkoon gën a xamle jàngoro ji nga xam ni moo di a fexe rek ba gën koo xamal ñi nga xam ni ñoo di askan wi moo nekkoon a mbëbëtul cérémonie bi nga xam ni def nañu ko foofee ca maison culture bu Douta Seck toll na ci soixante mille patients ñoo xam ni ñi ngi leen di caytu ci jàngoro jooj nga hôpital Abass Ndao loolu euh, ki ko xamle di nag directrice boobule bërëb bu fajukaay di Abass Ndao professeur a nduux mbay am ni fi mu ne lu toll ci 2500 cas dinañ ko am ci at mi ca boobule hôpital bu ñu sukkandikoo ci centre diabétologie bu hôpital Aristide Le Dantec 2000 cas yu yees 2000 cas diabète dinañ ko am at mu jot fii ci réewum Sénégal ci boobile hôpital yokk ci itam ak 40 000 dossiers diabétiques yoo xam ne ñu ngi koy am ci boobile centre. jàpp leen itam mbokk yi ni enquête bi nga xam ne moom moo euh, ñeel fonds force Covid 19 maanaam koppar gi nga xam ne moom la ñu jagleeloon ministère de la santé et de l' action sociale ngir xeex mbas mi di Covid 19 euh, tëj nañu ko ci atum 2023 bi lu ni mel nag enquêteurs yi yoroon ci lu toll juróom-ñetti dossier foofee ca parquet bu Ndakaaru euh, directeur administration générale équipement d'âge yooyu le ministère bokk na ci professeur Moussa Seydi de Ndiaye ak ñoom ñaar ñëpp ñu déglu leen ci division des investigations criminelles itam bokk na ci ñeneen ñoo xam ni fësal nañu ci seen tur maanaam ñoom ñëpp toll nañ ci juróom-ñetti doomi aadama ñoo xam ne ñi ngi foofee ca ministère de la santé de l' action sociale yoo xam ne déglu nañu leen ca mbir moomu bokk na ci Moussa Sam Daaf Cheikh Tako Diop Mamadou Ndiaye Moussa Seydi bokk na itam ci professeur Daouda ak ki nga xam ne moo di Lamine Diallo ci assemblée nationale amal nañu examen budget bu ministère de la santé et de l' action sociale dimanche yamook fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub novembre atum 2023 Marie Xemes Ngom Ndiaye di jëwriñ ci nga xam ne moom la ñu dénk wàllu woow di wax hausse bu toll ci 9 pour cent ci exercice 2024 koppar googu ñu xayma ci 271 virgule 62 milliards ñu fas yéene ko nag teg ci programme boo xam ni la ko tax a jóg bokk na ci gën a ñoŋal lu jëm a ci wàllum wér yaram